Salut Keita acteur de développement fils Sangal Sangalkam département de Rufisque responsable Alliance pour la République d'abord je euh, remercie remercier la commission d'organisation Binga nga xam ni ñëw bañ ma tournoi bu tournoi boo c'est le tournoi de la jeunesse mu premier trophée bi nga xam ne ni man lañ ko tuddee Saliou Keita waaye tournoi trophée boobu aussi ko jox la jeunesse de la commune de Sangalkam jox la jeunesse du département de Rufus..! jël ko la jeunesse du Sénégal di wax première édition Il y aura 16 équipes 16 équipes yoo xam ni dinañu phase éliminatoire directe quart de finale demi-finale finale li am solo tournoi c'est pour que jeunesse ou Sangalkam nous nous ñu nous nous xam y a beaucoup de défis dans cette localité Nous allons relever ces défis au-delà du sport sport c'est pour fédérer la jeunesse pour fédérer les énergies Nous fexé changer relever les principaux défis au niveau de cette localité wax nañu les cités nouvelles mais cités nouvelles yoyu problème yi bari nañu inondation bi mais est-ce que dañuy sétane autorité municipal yi kese règle ko non non non est-ce que dañuy sétane l'État qu'est-ce kese règle ko non non non dañu japp ni jeunesse bi fi nek warul nek une bombe sociale mais jeunesse bobu dafa wara nek ben atout pour accompagner l'émergence de Sangalkam lolo tax tay ñu japp ni buñu organiser lu melni jeunesse yi dinañu xamanté dinañu joxanté et surtout la maison de l'entrepreneuriat bi nga xamné ñom jeunesse bi ñoko mom nous sommes des acteurs politiques mais nous avons capitalisé l'expérience, nous avons un expérience carnet d'adresse mais nous dinañ ko une opportunité pour aider la jeunesse de Sangalkam pour aider les femmes de Sangalkam Nous am autonomisation bu baax ba insertion socio-économique voilà la raison d'être maintenant de ce grand rendez-vous sport sportif donc je remercie remercier d'abord les ASC yi nga xamné accepté mais di wax encore une fois le tournoi n'est pas un tournoi politique ku bok APR ku mouvance présidentielle ku opposition ne ñëpp parce que faites-moi à la fin on va organiser une très grande finale inviter tous les responsables politiques je bi gëna xamanté, c'est que mo am solo en tout cas salut. je fais de la politique mais la politique n'est pas mon métier politique du mon métier je suis acteur de développement je suis docteur en marché public Con, politique dañuy jàppale le président de la république nekkuñu ci benn chemin nekkuñu ci benn chemin soxlawuñu poste kenn xeexuñu ak kenn xulawuñu ak kenn positionné wu ci dara lenn rek moo ma ñor jeunesse au Sénégal naka lañ leen mënee être président de la république kontaan jeunesse bi ñoo jeunesse bi ñoo fal président de la république président de la république jox ñu cër ñu war ko liggéeyal ndax askan bi contane askan bi mooy jeunesse bi kon ñun dañuy fàtte suñu bopp bu fekkee ni président cëral nañu fàtte suñu bopp mooy jaxasoo ak jeunesse bi jaxasoo ak famille jàppale leen seen yitte seen jafe-jafe nekk suñu yitte lépp luy jafe-jafe askan bi jafe-jafe jeunesse bi fii si commune de Sangalkam man Saliou Keita sama yitte la ndaxte président de la république lolou la sante kon dinañu organiser tournoi bi ñu xamanté déjà nous sommes devenus des copains nous sommes devenus des amis et c'est ça le Sénégal xaw fuñu for xaw fuñu joggé mais xam naa ñu Sangalkam la ñu jógee te Sangalkam la ñu bokk kon nañuy joxante loxo inondation yaa ngi ñëw ah. ñun ñooy ànd duggu régler ko wo autorité. yi régler apporter nos contribution parce que duñu xaar bu mu taw kon jeunesse bi nga xam ne ñooy bokk ci tournoi bi ñoom lay àndal ci inondation bi ñu jàppale askan bi parce que dund nañ ko daaw te loolu moo ma poussé may engagé wu fii parce que kenn du jóge feneen di régler les problèmes de Sangalkam les autorités municipales dinañ leen jàppale Yalla mo leen jox cër bobu ñun dinañ leen jappalé par la force waye ñun it nañ ñu jox suñu cër na ñëpp ñëw nous mutualiser les efforts mutualiser les forces nous ñu nous relever Sangal Kamnek, la première commune du Sénégal